waa xam nga Mamadou loolu foog naa explication bi yomb na parce que président tënk na ko ci discours bi mu def discours bu gàttul buy guddul mhm. mais ba nga xam ne quintessence quintessence discours bi wax na ti li indi euh, nu mu tudd rapport bi président de la république ni ñu ko xamee xam nañ ne coobareem moom woon mu dem pare woon na bay dem dem yoonam bàyyi bàyyi réew mi def discours bu mag ne day quitter dëkk bi te du mu na tudd day quitter la présidence de la république et du nekk candidat alors que la constitution lui permettait d'être candidat mm-hmm. opposant yu bëri wax nañ ko fi d'ailleurs donc mu am grandeur bu toll ne moom day dem mais nag dafa am loo xamante ne nag euh, dafa xew entre temps euh, rapport bi c'est pas le fait du président de la république encore une fois de plus rapport bi dafa am groupe parlementaire boo xam ne ci opposition lañ bokk muy waa Parti démocratique sénégalais ñoo déposé une demande d'ouvrir une enquête parlementaire sur des supposées corruption ak yeneen ak yeneen mm-hmm. mu am xiiroo ak ŋaayoo ak conseil constitutionnel mu am ay wax yu ci juddu mu am situation bu compliquée boo xamante ne dafa taxaw ñu gis si loo xamante ne aussi xel mën na teyal xel ku mel ni Karim Wade mu nga xamante ne du ma défenseur nag mais citoyen la ko ñun ñëpp mm-hmm. koo xamante ne euh, dafa déposer renoncement nationalité française am ñu dem ñu téye ko ci loolu alors am na candidat yoo xamante ne nationalité française lañ am te ñu jàllale leen te article cent vingt cinq dafay jox conseil constitutionnel euh, ay pouvoir pour mu saytu nationalité ñi nga xam ne dañuy nekk candidat mm-hmm. donc loolu yëpp soo ko boolee mu indi situation yoo xamante mën na indi ay problème ci njeexitalu élections yi. mais président Sall baal ma bi ko euh, recalé seete dana leen euh, conseil bu waxee pare mënut ci dellu ginnaaw. donc est ce que loolu doyoon na tey jii nii ba tax ñuy reporté waat. yëf yi pour dem ci leneen est que est ce que le PDS am na droit demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. si ñoom on on on comprend leur démarche mais yéen on xam nga ñoom non xam nga ñoom mënoon nañ def ni waa Pastef di def di taal réew mi di tàkk di def defuñ ko. ils ont choisi la voie de la légalité. Mhm. ngeen jàppale leen ci. suñu député yaakaar ne loolu lu setal luy leeral la pour ñu mën a dem ci ay conditions yu yu baax man mii di wax ak yow. Mhm. soutien Amadou Ba laa woon parce que Macky Sall da ko tànn ma dugg si nag xeex ci lu ne ma def ko si. lu ngay conjugué au passé. soutien Amadou Ba laa woon. non soutien Amadou Ba laa ba léegi. ok je veux dire je veux dire si choix yeeg yooyu. même avant choix yi. j'étais avec lui je suis avec lui. moom laa doon soutenir. Mhm. parce que Macky Sall da ko tànn ñu was su suñu àq. mais su amee situation yu demee nii dama yaakaar ne dafa jot dafa baax ñu taxaw tuuti. Mhm. taxaw parce que ñun suñu intérêt d'abord ñun waa coalition bi ñu nga xam dañuy présenter candidat waruñu présenter candidat mu am coow lii yëpp élection yi am même candidat bi su gagné sax coow yeneen mun na ci jur.